marqué ci làmb ban combat ci lépp ci làmb daal. combat bi nga xam ne da nga ko seetaan mu marqué la bu mën a ko fàtte. Hmm. bari na nag. ñoo jox ma ci benn combat bi la gën a marqué ci làmb ban combat la. Balla Gaye Bombardier. Bombardier Balla Gaye de. bi bi Bombardier bi nanguwaat couronne bi. koy daane waaw ni mu ko daane. ndax damaa xam boobu liggéey na ba bëgg a dee doo nga yegg fi mu soxla sama yërmande jàpp ma te toogu fa niñ ko daane yomb lool. daanaka ma xam ne sonn na waa daanaka li mu am am na ko métti ci àddunaam. Mhm. damaa xam li ci sport. Eh, loolu boobu moo la gën a marqué. Euh, par la suite dama naan euh, mbër damay xaw a dugg tuuti euh, benn instant dama naan yow bi nga dalee bëre ba tey mbapat ba arène ban victoire moo la gën a nekk sa carrière. man nag arène daanaguma ci amaguma ci combat arène. mbapat nag peut-être tournoi bi ma njëkk a dem bi ma njëkk a dem jas. Mhm. bëre faak too ki na too too mooy ki yaaw jaal yenn woon mu mat. maa ko xam ma daan ko ci konam ko loolu ma gën a neex. daan nga too waaw. ma demee ci moom laa njëkk gaay gars yi naan moo fi mën ma njëkkoon loolu ma gën a neex ndax ci laa njëkk a takke seeru mbapat comme nii nii bëri jour boobu ci jour boobu Sëñ Saliou dafa nelaw tey ci suba moo nekkoon tournoi bi ci laa njëkk a dugg ci làmb di ko fàttaliku nag ak bés ba mu tombé moo tax mooy victoire bi la gën a neex sa carrière ci mbab waaw ban défaite moo la gën a métti sa carrière maak Tafa chef de gare sa benn combat arène ndax ñu tegal la esel nga yéeg boo a jël siwo bi nga jël yu këpp sa yelwaan dafa est-ce que dégg nga ma. dégg naa la maa ngi wax yow ce qui veut dire que gaynde mer la fanaanoo. dama waroon ne yàlla dogal ma am loo xam ne mu doy waar su ma juumee est du tey sa naka bi am. premier combat grand combat. ma war a daan yéeg au sommet peut-être du moo gën fa sarax la. yàlla yàlla dogal ma ñàkk. ba tey su ma yow sama xol gis yi émi. mooy loolu mooy loolu ça passe. ça passe on attend le retour. Euh, par la suite euh, dama naan rek euh, mbër mi. ko gën ci làmb Euh, da ngay da ngay football. bu baax. da ngay football. Euh, ban équipe mooy sa équipe. wax la dëgg yàlla tax su weesoo Sénégal. benn footballeur laa am moom laa xam muy Neymar. non la sa li ma lay laaj euh, bi mooy sa équipe préférée. mooy équipe am mais bi mu la am moom laa xam muy Neymar. sa équipe bi sa Paris ah germain Paris mooy sa équipe. man nga ma limal 5 joueurs yu euh, nek Paris Saint-Germain 5 joueurs yo xamné mëna ñu jaar Paris. jaar Paris. man instant bi xamné man nak peut-être minu ma len ndax tamit tam réalité dafa baax. minu ma len mais fu ma taxaw gis ñu football damay taxaw di seetaan. Paris su ma né xamé né Paris la. sama temps dama koy jël. wala yow Neymar ngay seetaan. non Paris dama koy seetaan mais Neymar sama footballeur préféré la. moy plan national ci sama. tir question bobu day ñëw. moy déjà kan moy sa joueur préféré.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 dégg nga tontu bi akasa mooy sama woykat merci akasa mooy sama woykat akasa lan lay woy non day jàng jàng jàngkat la waaw jàng woy benn la non benn la voilà moom lay déglu mooy sama akasa mooy sa woykat waaw euh, coob bi plat préféré bi la plat préféré nag man moom amu séeréer laa de moom bëgg ay ñaari cin lekk bu am soos ba ñu ko bëgg sa plat préféré lan la comme bu leen di ko dicté waaye ba leen ko mu tontu waaye li la wax nii sax fa laa jënd moom ndax am ah, ñëwal rek bëgg cere bu am ñeex bu weex bi mooy cere nu mu ci wax. Euh, nooflaay bi dama ko bëgg cere boobu mu am moom. cere daal mooy sa plat préféré. Euh, par la suite dama naan sa comédien préféré kan la. mu comédien préféré comédien yi nag dama ci bëri xarit. jox ma ci kenn xam naa leen jox ma ci kenn. préféré ah. dina doy waar jox ma ci kenn. jox ma kenn rek. Oh, day xaw a day xaw a daal di wala kii lañ wala mooy sama frère wala mooy kan kooku fu mu dëkk wala fu mu dëkk jàpp man damay daaneel ah mën na billaahi sama kon mi ngi ñëw et le meilleur pour su ñëwee bi ko ah mi ngi ñëw mooy sama lépp mooy euh, série série euh, man moom xam nga lu am sens sama àdduna dama bëgg soo ma ma passé ko ci am sens bari na ay idol dama yang di idol idol mo sa série préférée seetaan waaw mbër yaa ngi question ma lay posé jàmm gën bokku ci fan la ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk fan moo la gën a ci Sénégal gën ci si Gambaaw si Gambaaw Gambaaw gën la ah mais jàmm ak gën mais sooy lim jàmm ak gën yéen sikaab ne jàmm gën. ah gën a jege gën a yegg. waaw bokkuñu ba léegi sikaab baaw daal moom la sikaab la jàmm ak gën jàmm gën la. mais dërëm dëkk gaal mi la nekk. Euh, question bi bokku ci ah. ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi pays boo xam ne ngay rêvé jox ma benn. États-Unis moom moo gën a. États-Unis d'Amérique. allah. Euh, mbër mi. nga liggéey tekki daal ci am alal yu bari lan nga ciy njëkk def yóbbu sama yaay ji màkka tabaxal ma kër moom ngay njëkk a def boo tekki woon am alal yu bari li ngay njëkk a def mooy yóbbu mère bi màkka tabaxal ko kër boobaa su ma deewee sax yàlla baax la nekk yàlla xam na coo euh, nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loolu dañu jële ko fi lan nga fiy jël euh, man de li may njëkk a wax mooy euh, na ñëpp nekk benn daal non lan nga fiy jëlee nga xëy un ne la am nga benn Barthélémy mooy li may ñëw loolu ne lii jëlee leen ko xam nga sooy question soo ma ko tontoo rek soo ma dégloo dinaa ñëw ndax man dama am dégg dama ne sooy tere dara da am loo fay teg balaa ngaa mun ñëpp di juboo foog nga am loo bàyyi loo def loolu ni pour ñëpp mën a nekk benn say benn bant bale soo lemee day damm soo boolee bale bi yëpp nu mu def danga koy lem ba mu sës mais du damm lu tax doole dégg nga ba tax euh, li may njëkk a tere mooy nit ñi génn ci lu loo xam ne lu yàq daal ma tere ko fi pour ñu génn indi lépp lo xam ne day defar àdduna. lu yàq nga jëlee ko fi lu fi yàq lu bokul ndax yalla amul lu bax lu bokul ma dindi ko lu bax ma indi. coono ma la nga tontu. en euh, avançant par la suite dama naan euh, mbeur mi. Mhm. bi nga juddoo ba tay ñu may xaj yow ban jour mo la gën neex ci aduna ak jour boobu lan nga dund. jour ma gën neex sama aduna lan nga dund jour ben jour kese bu ma mos am luma neex jour bi la gën a neex ci sa adduna question bi dafa leer mooy jour bi ma samay xanaa bi ma jour bi man jour neex sama adduna mom. sama yaay ne ma demal takki diw ma dem takk ko indil ko ko muy ak ndax sama yaay mooy sama lépp dama ko bëgg loolu bokk na ci lu ma su ma yeewoo gis mu toog di ak rek day na ci neex sama adduna soo jubul réponse bi leer bi nga juddoo ba tey ma ak yow ban jour la ci jour lan nga dund jur ma gën a metti sama àdduna hmm. lan nga dund jur jur ma gën a metti xam ne am nga la metti lu leer na ne sa sa xol mooy loolu bokk na ci jurum tey sama yaay soxla dara mënu ma koo faj mbaam mbaa dara dal ko te mënu ma koo yëkkati loolu daal moom mooy li nga xam ne dalay metti dëggantaan mbaam lu ma dal garaawul mère bi am soxla fekk mënoo ko koo faj ma koo faj mbaa dara dal ko loo xam ne mënu ma koo yëkkati yàlla teg ko le reste moom sax le problème soo jubul on avance euh, mbër mi euh, mbër yi nekk au sommet mbër yi nekk ca kaw a kaw a kaw kan nga ciy rêvé un jour amee sifflet génn seen diggante nga war a bëreet ñoom mbër ma ngi ci kaw waaw mbër yi nekk ca kaw ténor yi mais nag bëgg naa bëreet ñoom ñëpp ñoom ñëpp la rêvé mais kan nga ci kan nga ciy génère koo xam ne da ngay génère un jour amee sifflet génn seen diggante nga war a bëreet moom bokk na ci guy gi guy gi guy gi bu mor faram da ngay rêvé moom euh, lu tax ah dafa la man ku dugg lamsaar daan fi nit rek sama àdduna damay bëgg ñoom ñëpp nag ñu bëre mais guy gi damay rêvé bëre ak yow damay am rêvé bëre ak xam nga li la yóbbu ci niveau bi guy gi toll waaw am na ma jàpp mooy <coughs> entraînement bu doy doole a bëre suñu bañ man loolu laa jàpp loolu moo la fa yóbbu te yaa ngi ci incha allah ci loolu lañ nekk mbir mi damay faral di wax naan euh, série du yem ci benn épisode dama c'est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la mais xam naa du yem ci tey li ma andi woon ci question jeex na dañ koy tàggatoo tàggatoo bi nag damay damay may tuuti sec ma xaw a am ñu ma cité mhm. gërëm sama waajale kaay seex kii moom la kaay wa sama woon nami kee sama grand la sama xarit la seex salaan seex salaan ma koy wax seex borom xolu or bi kii jaan bu ko mat su ma see bu xar mhm. ku yoral bor poñe ma soo ma gisee mhm. kii du ma wax ci moom Iyo. sama seex la. booy yi moom kii la ñu wax bolokaas numéro 2 on est deux xool bu baax booy yi. fii kaay kii la yow. kaay kaay non non kii damaa bëgg kii dem non kii. kii bëggul sax ma laal ban bëggul ma laal ban xool. Ah, ah. gis nga lal bii ma ko jëndee mhm. barke du ko wàcce. barke yonente ya yiiteem lay tàgg. ñëw def lépp kii. am bëgg mu jël ci kàddu ndax moom sama lépp la daal. ndax man ñi ñooy sama xarit booy yi aw ma seen fay. ku mel ni Ibou mi tailleur la ki puso dafa damu ci loxoom xaadim Diop naan booy bi kii moom ci kër gi la bokk seex la ci kër gi yaa ngi dégg bu baax boo yee ñii ñëpp famille lañ ci ñii moom mënu ma leen a lim beneen émission ndax dañu amaat beneen wala ma bëgg boo yéeg def ci ndax ñii li yàlla di wax naan euh, soo bëggee dugub dangay bàyyi bu asamaan taw nga ji ci tool bu baax nga am dugub am ngooñ dëgg nga wax ñii noonu la demee ñii moom suñu wax ci ñoom fii laa kii mooy Youssou Ndour mi ngay dëgg Youssou Ndour numéro 2 mbeex ndooy mi nekkoon Fass te mooy kalaas bi ñoo bokk ndey ak bàyyi kii mooy Youssou Ndour rakam am mbeex ok bokk ndey ak bàyyi comprendre li kii sama séeri la si ñii moom mooy loolu seen nagu di nuyu yaayam ceena nag suñu jigéen boo xam ne jàmm gën day son ci mbëri nekk jàmm gën yëpp yaayam yaay Fall la boo xam ne barke yonente yàlla Muhammad sama jour commencé xoolee moo doon njañ njañ